Ansoumana Dione euh, yow yaa jiite ASAM association sénégalaise pour le suivi et l' assistance aux malades mentaux di ASAM tey jii muy bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel ñeem feebaru xel ñu bëggoon a xam ban appel ngay lancé ci bés bi. waaw euh, tey euh, dañuy rek woo ki si njëkk ki jiitu muy président Macky Sall président Macky Sall moom la ñuy woo di woo sunu ministre Abdou Diouf ñoom ñaar la ñuy woo ñu ñëw taxaw ñu am xel parce que OMS lu mu wax dafa leer mhm. nee na nañu noppi nañu bàyyi wax ju bari ji te jublu ci liggéey bi nañu nañu jëf jëm si ñu am feebaru xel nañu génne xaalis bi def ko si ñu am xel waaye nag boo gisee bëccëg bi nga xam ne rek moom lañ jagleel ñu ñame feebaru xel état bu senegal mënu cee taxaw taxawaay bi ko ci war loolu dafay wane ne ñoom nguur gi fi nekk parewul pour toppatoo ak ak yelleef na mu feebaru xel ba moo tax ñun suñu kuréel gi di asam mhm. démb bañ tegee ba midi lettre bi nga xam ne ministre moo ko war a pour ñu jox ko suñu ay invité lettre bi génnul ñun nag ñu jël seen responsabilité daal di jël benn bataaxal yónnee ko taskati xibaar yi pour que tey jii si kanam ci onze heures ci ministère la santé ñu daje foofu man ak ñoom ñu seq benn waxtaan waxtaan bi lan lan moo ko tax a jóg muy ñaax Abdoulaye Diouf Sarr ñaax kilifa yi pour que ñu amal benn réunion bu gaaw tey jii ci samedi bii laa wax ci samedi parce que tey ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñi amee feebar xel ñoo ko moom Abdoulaye Diouf moom moomul boppam Sénégal moo ko moom ñi amee feebar xel ñoo ko moom kon war na mën a teewee ab ndaje boo xamante ni dañ koy waxtaanee ak ak yelleefu ñi amee feebar xel rawatina ñu nekk si mbir bi taxawal parce que OMS li mu wax leer na na ñu jëf ci ñoom ñu génne koppar yi léegi nag jëf mi ngi tàmbalee ci tàmb ci commencement bi commencement bi mooy ñu amee feebar xel nekk si mbedd yi taxawaalu déjà ministère de la santé état bu Sénégal mënul saafara problème bi nga xam ne mooy ñu amee xel nekk si mbedd mi taxawaalu. suñu mhm. kuréel gii di asam moo ko mën te nag ñun suñu kuréel gii di asam suñu kër ga ci kaw Kaolack. Mhm. état bi teg ko ministre bi xam ne ñun ñoo ko moom. Mhm. direction générale bu action sociale bind kayit ba mu leer ne ko sant bi day delloo ko ñoom asam. delloo ko Ansoumana ak ñu ànd mhm. bu ko defee ñoom ñu mën a taxaw ñoom ñu feebu xel nit ñi gunge leen ci loolu. Mhm. lettre boobu ba léegi ba fii may wax yow ne mi ngi ci table Abdou Diouf Sarr. waa tey lettre boobu nag. balaa ñoo wax ci centre bi balaa ñu cee gën a xuus ñàkk euh, màggal bés bi ndax am na yow noo ko jàngatee. waaw euh, maanaam dafay tekk rek ne ñoom pare wuñu pour dem pare wuñu pour liggéey ñoom feebu xel boo gisee président Macky Sall euh, bi Covid 19 bi ñëwee mu loxo saa yu moom boppam. boo gisee euh, octobre rose bi nekk nii mbirum cancer président Macky Sall moo day moom président Macky Sall am na mbokkam bu am feebaru xel moom président Macky Sall waaw naka ngay amee mbokk bu am feebaru xel comme ñu ko ñu bëri amee nag ci réew mi Sénégal koo fi gis ñëw koo fi gis naa wax mbokkam wala moom ci boppam am na feebaru xel naka ngay amee mbokk moom feebaru xel am ku la jege ko am feebaru xel te te ngeen yow mbirum feebaru xel du la soxal loolu dafa dafa ñaaw Abdoulaye Diouf Sarr mooy ministre de la santé am na yéen a rëy nag ci ñoom kenn na ko waaye li des mooy mu farlu mu farlu wax naa ko ko waxati ko ko suma xarit nga suma mat nga waaye il faut nga farlu ci mbir ñu am feebaru xel loolu yëpp nag lan lay tekki mooy ñii parewuñu bëgguñu ñu amee feebaru xel seen ak ak seen yéen ñu matal ko moo ñu dey constitution bu Sénégal moo garantie ne képp ku feebar. Mhm. rawatina sax feebaru xel. Mhm. lo la loi soixante quinze quatre vingt en na article premier moo ne ki am feebaru xel constitution bi nee na nañ ko faj ba mu wér ñu delloo ko ci njabootam waaw léegi bu fekkente ne président Macky Sall ak Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi nga xam ne mooy gouvernement bi lii soxalu leen ñun Sénégal fan la ñu jëm bëccëg bi ñu jag leen mbirum feebaru xel. ñoom ñi taxaw ñoom ci bi taxawaay ba ñun suñu kuréel gii di asam jël ay responsabilité am ngir lan ngir ñaax Abdoulaye saar Sarr. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr waruñu toog tax xaar ñu koy woo mu ñëw moo woo ne jiite mbir mi ba ñuy def octobre rose moom moo ko jiite woon. d'accord. ko ko Covid 19 bi bés bu jot. mu ngi ci taxaw. Mhm. mais lan mooy tee taxawaay boobu noonu ñu am ko fu ñu amee feebaru xel. Mhm. tey jii ndax centre bi nga xam ne euh, ASAM mu ngi ciy dox ngir ñu restituer ko euh, ña ko yellool ndax bu ñu leen ko joxee euh, dana régler définitivement li nga xam ne mooy problème errance su ñi am feebaru xel. gis nga centre Kaolack bi ba fii may wax yow nii ba nii nii nii ma nga tëjee kenn newu fa defuñu fa dara buñ la ko joxoon tey tey tey tey tey mën na régler problème bi yëpp. dafa doy sëkk laa wax dafa doy sëkk pour régler problème bi dafa fekk ne dafa fekk ne dafa fekk ne mbir mhm. bu fekkente ne bu fekkente ne euh, bu fekkee ne euh, soxalu la mhm. kam soxal moo ko xam da ko koy bàyyee moom mu toppatoo ko ñun ñooy nekk ci mbirum feebaru xel nañ ñu ko bàyyee fii ak juróomi at laa wax mhm. fii ak juróomi at buñ ñu bàyyi woon kenn dootu taxawal ci mbedd mi waaye nag kër gaa nga tëjee ñun ñoo ngi toog dof yaa ngi dee ci mbedd mi ñu ngi tumuranke waaw ci ban réew la ñu nekk ana teraanga Sénégal bi ñuy wax ana yërmande bi ñuy wax man dama jàpp sax ne ñi yor réew mi tey jii ñi ngànk réew mi mhm. amuñu yërmande amuñu sax xol lay wax amuñu xol ñi ngànk réew mi tey amuñu xool parce que bu ñu amoon xol wax naa ko Abdoulaye Diouf Sarr ne serait-ce que rek nga bëggal ma man Sénégal bu ñu bëggal ma man mi bàyyi sama lépp ñaar fukki at ma bàyyi sama lépp jaay sama àdduna ngir ñu am xel ne c'est que rek ñu dëggal ma ci loolu hmm. waxoon nañ ma topp ci sama bëgg-bëgg te sama bëgg-bëgg du lenn lu dul benn dox dox na ci mbedd mi hmm. ana taalibe yi ci covid 19 bi ana xale yi ci covid 19 bi yaa ngi ko doon ñaxtu di ci woo nguur gi eh, ngir mu gën a taxaw ñi am feebar ci lii di mbas mi ndax eh, sa woote googu eh, andi nañ ci saafara ba fii may wax ak yéen nii ba fii may wax ak yéen nii dafa mel ni sax dañ ma kokkali bi Covid bi tàmbalee ba léegi président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr gouvernement bi laay wax nii amul kenn si ñoom ku jóg ne nañ leen toppatoo ñu nekk si mbedd bi ñoom bu bëgg ñu sax tudd sax bëgg ñu sax ubbi seen gémmiñ tudd ñu amee feebaru xel président Macky Sall de na ubbi gémmiñam Macky Sall sénégalais yi ñoo ko fal na ubbi gémmiñam daal di tudd ñu amee feebaru xel. nekk si mbedd mi di taxawaalu ne leen jox seen ak parce que moom Macky Sall moom la yàlla jiital te yàlla mu ngi koy xool ci biir njabootam moom laa wax ñu am feebaru xel mi ngi ci biir loolu leer lay wax parce que du ma waxantu. pourtant amoon na spécialiste euh, jamono ja génne génnee wax ñu ne pourtant am na am na ñi nga xam ne am nañ feebar xel te jël nañ leen en charge. ñan ñoo wax loolu. ay spécialiste wax nañ ko fii waaw xam nga euh, sunu spécialiste yi sunu psychiatre rawatina nag nekkul ci kàcc psychiatre yi nekk division santé mentale ñu nekk division santé mentale ñu nekk division santé mentale mm-hmm. docteur Tine sax lay wax docteur Augustin Tine ci boppam lay wax mm-hmm. lu ñu wax dëgg sénégalais yi li ñu wax lépp laa wax sama baat kaw laa wax sama baat kaw ay kàcc la dañuy wax ay kàcc kese. ci mbas mi ci mbas mi lay wax spécifiquement. non moom laa lay wax ne amul loolu ay kàcc la nañ ma wax kan la ñu faj ci mbas mi amul benn nit am feebaru xel bu nekk si mbedd mi am feebaru mbas mi hmm. lenn moo fi nekkoon benn benn waaye bu amoon feebaru xel mu entré hôpital psychiatrique bu Thiaroye mu am ko foofu noonu man kaa boobu suivre naa ko personnellement hmm. ak directeur ba Ousmane Seck ba ni ma ne tane na ba ñu defee test yi ba ñaari test yëpp négatif kooku dañ ko contaminé comme nañ contaminé ñeneen ñi mais dox bu ne ci mbedd mi am feebaru xel am covid 19 ku wax ne gis na ko ay kàcc la amul benn nit bu ne ci mbedd mi am feebaru xel te ñu gis ne sax ne Covid bi laal na la te ñoom li may tout le temps ñoom ñii ci mbedd mi hmm. mën nañu am feebaru Covid 19 ba pare waaye duñ ko manifester maanaam ñoom mën nañ ko am sax te du leen feebar amul benn cas gis nga su su suñ spécialiste ngay dégg nii. Hmm. ñu ci bari luñ ay waxu dëgg sama baat ci kaw laa wax. Hmm. waxuñu dëgg amul kenn ku am feebaru xel nekk ci mbedd mi am feebaru mbas. ñu faj la déedéet di ki am tegu xel hôpital psychiatrique Thiaroye la nekkoon mu am euh, ñu contaminé que même la direction générale de l'action sociale sax yóbbu dafa ay ndimbal pour famille boobu noonu kon gis nga li may wax xam naa ko. Mhm. donc nit ñi bu ñuy wax nañu wax dëgg nañu bàyyi di nax seen bopp ak nax askan wi Sénégal toppatoowuñu ñu amee feebaru xel am na ñu ci mbedd mi am na ci am feebar yu bari am na ci am feebar yu bari ay tuberculose ay façon euh, feebar boo xool rek insuffisance rénale. Mhm. feebar boo xool rek ñun fi ñu amee feebaru xel nekk ci mbedd mi. Mhm. cancer ñun ñu ngi mbedd mi te leen. li am solo mooy mooy dof yaa ngi ci ci mbedd bi ba ci buntu palais Macky Sall te kenn toppatoo leen. d'accord ban taxawaay la famille ñooñu am feebaru xel euh, war a taxawee ci biir xeex. waaw euh, famille yi ñun xaaruñ leen ci na xaaruñ leen ci lenn ndaxte ñoom seen jëm bopp. ay victime lañu maanaam ñoom dañ soxla ku leen dimbale mm-hmm. maanaam yow bu fekkente ne boo jëlee tey Jurbel dëkk bi toll ju Jurbel amul fenn fi ñuy fajee feebaru xel seen mbokk seen doom am feebaru xel wala rek am xel fan la ñuy dem la ñuy dem dafa mel tey rek ñu ne yow mi jigéen mm-hmm. nga bale kër ba mu set ñu ne la mbalit bi ranger ko ci sa armoire loolu nekk mbalit da nga koy sànni ba da nga koy sànni xel da nga koy faj ba mu wér waaye doo ko tey ci kër gi noonu place comme feebaru xel hôpital la ba mu wér ñu dellu ci kër ga moo tax ñun suñu programme bi boo gisee nit ñi di ñu xeex yépp loolu la parce que ñun dañoo mën ñoom la ñu mënul ñun comme soldat ba damuy demee ci bango mhm. buy dugg armée day mel ni gaynde waaye buy génn day mel ni xar mhm. ñun soo ñëwee su ñun da da ngay ndóol waaye booy génn da ngay da ànd ak naataange waaw na na naataange kan moo koy yore te benn famille di la bëgg ñun dañu lay faj ba noppi dimbali la ba nga mënal sa bopp ñu doog laa yóbbaale ci nga xam ne nii mooy say njaboot mais bu fekkee ne danaa jël kam sabakal ci mbedd mi ay waa këram amuñ sa luñ lekk nga ne leen malade baa ngi ne kaay leen ñu faj ko dañ leen di yokk coono mhm. te loolu ñun loolu taxu ñoo jóg moo tax famille yi ñun ñu leen tudd duñu leen ŋàññi loolu tax ma waral même les familles ñun chaque fois dañuy woo di ñu ñaanal di ñu encouragé parce que xam nañ ne ñun ñooy seen yaakaar ñun li li ñu bëgg su antoo seen aajo dana faju tey jii ñun suñu bàyyi woon bi nga gis ñoo xamante ni seen mbokk foogal ne sax faatu woon nañ waaye bu ñun bu ñu bàyyi woon tey jii ñu liggéey comme ni mu waree nga gis koo xam ne tàggewoon bi sax foog na dee na waaye mi ngi ci mbir mi taxawal di nga ko faj bu mu wér dem daloo ci ay mbokkam. Mhm. monsieur Dione euh, déposé woon nga fi plainte euh, contre nguur du Sénégal gis nañ tamit yeneen plainte yu fi jot a jàll ndax mës na am benn plainte bi nga xam ne am na suivi. amul benn plainte nag amul benn plainte boo xam ne nii rek procureur jox na ci suite ay at ci gannaaw ay at yi at ci gannaaw procureur daf may woone ma mbirum administration la dem leen ngeen négocier dem na ngeen waxtaan fii ku fi jàggati yoon dal sa kaw waaw naka la état bu Sénégal di jàggatee ba noppi te yoon du mën dal ci kawam yoon war naa mën a kaw bu Sénégal ndaxte bu fekk ne constitution bi ku feebar nañu la faj rawati nañu am feebar xel nekk la loi soixante quinze quatre-vingt en ba mu leer ki nekk ci mi nañ ko toppatoo waaw léegi nag état bu Sénégal ci boppam xaj na loolu ñun ci yoon ba tey yoon adduwu ci yoon waxu ci dara moo tax nag may woo président Macky Sall moom mi xam ne moom mooy le gardien de la constitution kon maanaam constitution bi moom moo koy aar yiir ko te moom dafa waat dafa waat ne dana li constitution bi laaj dana ko def léegi nag constitution bi nee na nañ topp dañoo am feebu xel ay jeunes taxaw pour topp dañoo am feebu xel moom nguur Macky Sall ne loolu du fi amee kon moom Macky Sall moo jël ay responsabilité am pour que ñu am feebu xel ñu mun leen dimbale waaw lan lan mo tee laa président Macky Sall mu ooma man en ce dalal ma lan moo xanaa ñi xanaa ñi ñi am feebaru xel xanaa ñoom ñu ay sénégalais ah kay parce que moom xam na lu ci feebaru xel ndese mbokkam am na ko kon moom xam na lu ci feebaru xel waaw léegi Abdoulaye Diouf Sarr lan mooy tee ñu sama bëgg bëgg bëgg ñu taxaw ci loolu daal laaj la man bu may laaj te wax dëgg yàlla bëgg laa indi ma tontu tontu bi nag mooy lan mooy li nga xam ne moo leen war ñu def ko parce que mënoo yor réew ba noppi. nga ne nag li la war ci ñi amee feebar doo ko def loolu dañuy jàmmaloo ñun asam dañuy jàmmaloo ak yow te jàmmaloo boobu mën na ñàkk mën na ñàkk nañ waxante dëgg nañu toog ñun laajuñu leen lu ñu mënul li ñu leen laaj mooy nañu delloo suñ kër nga xam ne Abdoulaye Wade moo ñu ko tabaxal nañu ko delloo kër gaa ngi tëjee mi ngi yàqu sax fat nag léegi nag kër ga sax léegi ma nga yàqu léegi même bu ñu ko jaxaat même bu ñu ko jaxaatoon ni sax mhm. dañ koy liggéeyaat pour mën taa mën a def li nga xam ne nii mooy suñu yéene. Mhm. Ansoumana Dione ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi leen di sant di leen gën bu baax ñu tamit. may fàttali ne yow yaa jiite ASAM.